Euh, man dëkk naa juróom benni at Afrique de l'Est soo demee dëkk yu mel ni Zimbabwe da ngay gis benn fermier américain benn fermier euh, euh, sud sud zimbabwéen tubaab 1000 hectares rek lay yore mais li muy exploité moo xam tabac la moo xam sucre la moo xam fruit la moo xam fruits et légumes la loolu yëpp dafay entouré boppam ak lu mat 5000 wala 6000 petits fermiers kii dana am demi hectare bolé da fay da fay dépasser ñent yoon ba juróomi yoon li industriel bi di bay mais industriel bi da fay nek locomotive pour xëcc xalé yooyu da leen former euh, taatagal leen jàppale leen léegi gouvernement bi su ñëwé ak programme mu euh, euh, euh engrais ba paré aussi jàppale leen ci installation parce que sank monsieur Fall wax na lu am solo moy peut-être nañu xool nan lañuy euh, nan lañuy organiser ben, ben, ben, ben réunion bo xam lan moy contrainte yi nga xam Ni ak jafé jafé yi nga xam ni surtout petit euh, petit petit petit entrepreneur yi nga xam dañuy dor bëgg seere bu melni lu muy taxe la muy exonération nan lañ ko mëna a saytu ko ba nga xam ni gouvernement bi dina ci gis gi euh, euh entrepreneur yi dinañ ci sen bop té man njortu né ségam dañuy importer 66 milliards fruits et légumes sous sous sous industrie avicole bi en partenariat avec le secteur privé national ak ñun ñi ñu toog xalaat ne ah gouvernement si nous faisons les léeg li, nous dañuy engagé wu créer tant d'emplois, nous dañuy engagé wu créer tant d'automnes. tonnes njortu ak son excellence de le président de la république ni ma ko ak son euh, premier ministre bi ni ma leen gisee ak ni nous xarañee ci xëyu ndaw yi ni nous dëggoo ci xëyu ndaw ñi ak ni ñu ci ndaw ñi gouvernement bi dinañ ut solution euh, partenaire yu melni suñu len amone suñ ci amone fuk ñu nek locomotive commune bu nek ñu dem jël fa 200 hectares té xolal fi ndaway comparé à 200 hectares vous imaginez ce qu'on peut faire sur 200 hectares légui 200 hectares bu nek nga def ko ben hectare ben hectare ben hectare def ko ben serre bu melni dal former xalé yi ba nga xamné ni do importer fruits kenn do importer légumes su dé légui li mën def 200 hectares bu ne nga def fa benn euh, usine ben usine bu ndaw bo xamni ni nii da ngay dem Inde usine ci ben conteneur lay nek nga xamni ne tomate bi su fa jógee kenn du tomate ken du transporter tomate mu yàq euh, purée tomate bi rek lañuy la ci conteneur bi mu def ko purée ñu déggul ci ay bërigo mu dal di dem ci usine ba donc loolu da fay tax non seulement dañuy créer emploi mais mais mais day tax ak xalé agriculture bi neex leen. li ñu fiy liggéey activité ñun ay jaaykatu jiw lañ mooy suñu cœur de métier entreprise bi dafay importer jiw di ko jaay léegi dafay sax produire lenn ci jiw pour jaay ko ci marché bi fii ak ci sous région bi am nañu ay activités de formation parce que man bi ma duggee ci agriculture dafa leer ci man ne du sotti mukk li fekk formé wuñu xale yi ak professionnels yi ba ñu am niveau bi ñu war a am pour ñu mën cee génn boo demee Maroc tey jii jël benn producteur marocain de n'importe quoi Boudé tamaté, boudé soupe, boudé boudé, bu dee le même paquet technique nga un producteur sénégalais ici le marocain est 5 fois plus productif la seule différence ils peuvent être dans les mêmes conditions Boudé fi des ak Agadir danaka ñu bokk ay conditions c'est la formation ñu la xam nañu li ñuy def xam nañu fu ñuy donc formation c'est incontournable Si bëggé am djégo ci kanam il faut nous former il faut nous motiver il faut nous wan des ni ñëri njëriñ lu wax dëgg yàlla lu lu sant la nag parce que lu ñu mënul lu ñu foogul sax lu ñu foogul te mënuñu ko xam li fekk dugguñu ci agriculture c'est vingt ans c'est vingt ans da ngay investir léegi pour récolter dans dans dans vingt ans le fruit de ton truc. Sénégal tey jii àdduna dafa dox tamaate loqati bi ñuy liggéey bu fekkee fukk la fukki kilo la huit kilos yi dañ koy importer ci réew bu mel ne Sénégal dama ne c'est pas normal parce que fii mën nañ fi bay tamaate. récolté ko transformé ko def ko loqati di ko jaay fii ci réew mi lu gën a yomb fuuf tamaate bi ñuy importé muy jóge bitim réew te tamaate boobu li may wax waa ana waa ISRA ñu ngi fi ñëpp d'accord nañ ci ne bu dee tamaate lañ ko tuddee it lépp du tamaate te fii 100 pour cent de tomate lañ fi mën a produire